Euh, kii ci góor yooyu la bokk ndax Mawlana Cheikh Ibrahim bayti ba mu waxoon ne yaay toxal bannaat zahim ne ilaa ne la bi ab daani fala Euh, lim ci doon namm lépp mooy liggéeyu Seyda mi waaye rawatina nag ci buntam maam Ibrahima Fall moomu nga xam ne ba joxoñoon na ne maa ngi leen doon digal ngeen di jàng Ruhul Adab tey nag euh, xool nañ ci maam Ibrahima Fall moo taxawee jëmmi Ruhul Adab euh, Seyda tey ñu ngi fii ci Gàmbi Gàmbi nag ku ko xam xam ne réew maam Alxaaji Abdallah la ndax damay wax ne fii la ma Alxaaji Abdallah rawale woon li nga xam ne moom moo di diinaam tey yàlla boole la ci ñi nga xamante ni àndi nañ ak xalifa bi nga dégg discours bu am solo bi nga xamante yëg na ko yëgati na ko lépp paix la mais itam kenn euh, du wax ne dafa te uuf ki xalab ke mais kenn ku ci nekk wàcce na la sa wàcce waaye wax la li nga xamante ne boo ci jàppee dem euh, dégg nga wax na ne euh, ñàkk amu fi mais dañoo tayal discours du xalifa bi daal laa lay ñaan ne boo ñu ko doon tënkal ci sa dégg-dégg ak jàmm yàlla yi nga xamante ni ñu ngi lay seetaan yaay wooy ñu nag. waaw sant yàlla rek alhamdulilah. maa ngi eh, sant yàlla di julli ci yontam bu tedd bi salaa salaam di sant sama sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala eh, di ci jiital xalifatu am mu papa Cheikh Maay Ibrahima Niass mi ma àndal tey ñëw gane si Gambia di ci teg imaamu akbar sama papa mi nga xam ne tey moo ñu nekkal ci jumaa yi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye di ci teg porte-parole bi moom itam Euh, di ci tek mboolem njabootu sama maam Maolana Cheikh Ibrahim Fall radiyallahu taala ak mboolem mu xaddam yi nga xam ne àndoon nañoo ak Maolana Cheikh Ibrahim Niass Baye radiyallahu taala di wax ne sant yàlla rek euh, suma papa discours am bi euh, discours bu am njëriñ la parce que fi mu ko waxee foofa dafa jëriñee ndaxte li mu wax ci ndawi jamono loolu dégg-dégg bi mooy ndawi jamono yëpp futteeku rek. pare pour euh, def li nga xam ne moom la sama papa digal digal ndaw yi ak mag ñi ñëpp sax parce que mbaax ñëpp a ko soxla maanaam jàmm tam ñëpp a ko soxla fi mu waxee nii baax na parce que euh, réew bi bu tàkkee rek tàkkal ñëpp euh, bu seddee ñëpp nekk ci jàmm te réew bu amul jàmm nit ñi duñ am jàmm te dama waxoon keroog wandari di dina ñii ut ñëpp waa Sénégal lañ ay Sénégal lañ njobootu Sénégal lañ war nañoo mën a àndoo nekk jàmm waxtaan déggoo ci seen biir ba juboo ku ci nekk li may ut mu déggoo ci moroomam moromam ba yàlla may ko ko ku ko ci yàlla may itam keneen ki ci des nangul ko ne ko yàlla moom moo ko ko may. li mu wax nag ci entente loolu son papa yàgg na koo wax li mu wax tam ci ndaw loo xam ne bii dafa war a góorgóorlu maanaam tabax dara loo xam ne bii nag day jëmmal dara ñi xam ne lii moom moo ko fi def. loolu dafa war mboolem ndaw yi moo tax ndaw yi euh, li leen son papa oo nii moo gën ci liñ xëy tey waaw liñ xëy tey li leen sama papa di kan oh, parce que liñ xëy tey amul benn bâche maanaam amul benn njëriñ nit ñaa ngi loru nit ñaa ngi yàqule oto yaa ngi yàqu nit ñaa dem ak dikk baa ngi arrêté kenn xamul fooy taxaw loolu fitna la te euh, alxuraan dafa wax ne mu ne rëbb na kuy ee fitna mu ne kuy ee fitna ku nekk mbokkam seytaane nga moo tax li wax ci Macky Sall wax ko ci euh, Sonko loolu ay ñaari doomi Sénégal la te ñoom bu bu bu kenn buuree ndaw yi buur bu kenn buuree ndaw yi buur te ndaw yi dañoo war a tabax seen àddina dañoo war a tabax seen seen seen ëllëg moo tax man d'accord naa ci li sama papa wax dégg-dégg bi ma ci amit mooy euh, am na njëriñ ci état bi mu ko waxee nii mosoon naa am njëriñ parce que moom waxam yëpp paix rek ci jàmm rek la nekk doxam waxam yëngatoom ak dalam yëpp jàmm rek lay dox moom jàmm rek nit ñi nekk ci jàmm rek mooy li ko gënal euh, jaante nag jaamu yàlla ci temps ku ko gis xam ne dafa sonn parce que mi ngi jóge ko voyage noppaluwut man mi ngi wax waaye man maa ngi bàyyi xel euh, coonoom man pratiquement parce que bi mu jógee ci guerre bale ba léegi bi mu leen jubalee ba léegi noppaluwut parce que jaamu yàlla ñoo ko soxla ci seen bopp jëmm la boo xam ne àddina bi yëpp a ko soxla waaye war nañ koy sakkanal itam parce que boo amee sa lu baax da nga koy sakkanal moo tax li muy waxtaan yëpp maa ngi xalaat ma ne Euh, man bu fekkee ne bii na jege naa ko tuuti danaa wax sama papa mu noppali ko tuuti parce que nit ku bu amee lu wëloor sa wurus da nga koy noppal moo tax man d'accord naa ci waxam bi kontaan naa ci parce que mooy mooy sama papa mais mooy suñ xalifa ñun ñëpp mais yàlla moo def ma bëggal ko sama bopp amul benn yoon boo xam ne bii na sama xel mi di jóg ci moom moo tax man ak njaboot gi nekk Gambie yëpp ñëw nañ mobiliser wu ak ñu nekk Kaolack yëpp ak ñu nekk ci région yëpp ñëw ànd ak son papa ñëw depuis ajjuma depuis xadara mu ñaanal jaami yàlla yi mais nañ koy ñaanal itam mu yàgg ci suñ kanam te wér aussi nañ koy sakkanal itam muy jël temps boo xam ne bii dañ koy bàyyi mu noppalu. mbooloo mu am nii euh, bi ñu lim muqaddam yi ñu cité ci ba ba déggee sa tur loo ñoom dañ maa jur ba pare bëgg ma dañ ma jur ba pare bëgg ma ñoom ñoo ma jur waaye ba pare bëgg ma ma gis rek niñ ma tuddee man man duma ca dara ca ci ci programme bi man ab jaamab yàlla laa boo xam ne bii ne damaa taq rek ci sama papa ñi buur rek tudd ma biñ ma tuddee sax damaa am kersa parce que euh, man jaam jaam jaama baay laa waaw jaama baay laa boo xam ne bi ne dama bëgg tuse rek ñu nangul ma sama njaam gi waaw dama bëgg Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu taala yemale ma koog dara bëgg njabootam ku ma ci xool rek bàyyi rek laay gis ci yow parce que loolu dafa dafa ànd oo gi ma oo ci boppam rek ànd ak man dafa rëy rawatina mu di ma tudd ci jotaay bii nii ñëpp di ma dégg te tudd gi moom la neex moom la neex mu indi ma Gàmbi moom la neex mu tudd ma waaye loolu dafa nekk loo xam ne dafa rëy ci man rëy ci njaboot gi yëpp aw ma seen pay yal na yàlla fayal ma leen ci barke Maolana Cheikh Ibrahima. sa taalibe yi laay seetaan bëgg la lool nag comme li ngay wax xam na ñoo xam ne yow rek yaa leen tere nelaw yan kàddu gaay yi yëngati jëmale si ñoom ak lan nga leen di dénk. ci jaami yàlla yi wala ci taalibe yi waa ci jaami yàlla yi waa xam nga damaa dama wax sànq. wallaay dama dama damaa dem ba mu yàgg tey ma ne man damaa am kerse ci jaami yàlla ci mbëggeel giñ ma bëgg sax damay dem ba rus ndax bëgg giñ ma bëgg te xam naa ne bàyyi miñ bëgg rek moo tax ñu bëgg ma dama lay nett rek benn benn benn kii tuuti rek dama dama dama dama dama romb rek ci faas rek am ku xëcc suma mbuum mi rek na ma yow rafet nga de man ma gëstu ko ni ko déedéet rafetuma de bàyyi moo rafet bàyyi ci boppam moo rafet bàyyi nga gis de gisoo ma man fii yëpp aw ma fa nekkuma fa sax sama lépp Mawlaana la wallaay ngees jaam yàlla yi ma bëgg yëpp tam maa ngi leen di ndokkeel ci bisi sama papa bi di ngan son papa bi parce que damay wax sànq rek ne suma sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala anhu ki nga xam ne dama kaa bëgg ci suma xol première tukkeem ci gana ak Nigéria fii la ko jaare wallaay ansim kon tey fii euh, fii mënut a ñàkk saf yàlla parce que maam alaaji Abdoulaye radiyallahu taala anhu jaar fi Baye jaar fi xalifatu am jaar fi imaamu akbar jaar fi njëbatu Baye jaar fi Gàmbi foog mu saf yàlla bëgg naa jaami yàlla yëpp comme niñ ma bëggee wallaay ñëpp laa bëgg ñi ci ñi ci YouTube bi ñi ci eh, Facebook bi ñëpp ak ñi nga xam ne bii ñu ngi may oo téléphone ak ñi may seetaan ci Kossy bi ak su ma njaboot gi yëpp ñoom laa bëgg parce que ñëpp laa jobee tey ñëpp suma njaboot lañ ñëpp ci man lañ bokk de amul frontière ñëpp bëgg nañ ma may bëgg naa leen kon maa ngi ñaanal eh, ndaw yëpp yal nañ déggee fi suma papa waxee nañ bàyyi lépp luy sapaan buñ sot buñ sotal kenn nañ sot ci yàlla nañ njëkkalante nekk taaliba baay nañ lëggéeyal baay parce que xidmaal baay moo wér leneen lu dul xidmaal baay amul njëriñ te baay mën nga koo xidmaal ci anam bu ne mën nga koo xidmaal ci tailleur bi mën nga koo xidmaal ci télé bi mën nga koo xidmaal ci téléphone bi mën nga koo xidmaal ci rajo bi fi nga ko mën a xidmaalee dafa bari ah suñ xidmaalee baay rek duñ tal affaire jalaal te loolu yëpp jalaal la de yooyu yëpp jalaal la kon maa ngi ndokkeel sama soppe yëpp yi nekk Gambie gis naa ne Gambie yëpp bëgg nañ ma waaye Sénégal itam bëgg nañ ma waaye bitim réew itam bëgg nañ ma diaspora bi yëpp bëgg nañ ma maa ngi ndokkeel ñëpp di leen ñaanal yàlla ci sama ñëw papa bi yal na ci jaami yàlla yëpp jëriñu ci barke yonent bi salaa salaam barke Cheikh Tidiane Sarif radiyallahu taala anhu barke sama sëriñ Maolana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala anhu barke sama maam Maolana Cheikh Ibrahima Fall ci barke sama papa Euh, Cheikh Maay Ibrahim mii nga xam ne bi dama kaa bëgg ci xol dama kaa bëgg ci sama xol yan yàlla yàggal ko ci suñ kanam lool lool lool muy sémb rek muy pare yal yàlla yàggal fi itam sama papa imaamu akbar yàlla may ko fan bu gudd moom itam mu mottali mboolem sémbam bay sémb rek buñ gestoo ñoom ñëpp daal nañ ñu gis ñun itam buñ gestoo gis leen asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah xam naa ne euh, fuñ na bàyyi xel yëpp daj euh, maanaam Cheikh Ibrahim la ku yàlla jégleel yow itam fu ñu ne yaay xel yëpp daj la <laughs> loolu nga niroo koog Mawlana Cheikh Ibrahim dëgg-dëgg eh, ku bëgg mel ni ka nga bëgg <laughs> macha allah jazakumullah xeyr laa ilaha illallah laa ilaha illallah Wakoly TV am ngeen ngeen yéen ñi ànd ak yéenay liggéey fay barahama Kossy TV am ngeen jarama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey fay du baay bi ci barahama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV